Salam man mon nom est Elou Fall artiste musicien euh, artisan en même temps qui vit à Rufisque. Euh, justement euh, c'est que association déjà au préalable bu juddu au niveau de Rufisque boo xam on a jugé nécessaire nous devons euh, association bi qui défend le statut de l'artiste Mais maanaam li nga xam ne sunu àq ak yelleef bi nga xam ne dañ ko manqué woon tey ñu ñafe ko euh, ba taxawal association bi mooy association Assura voilà li waraloon tey bi euh, daje bi la rencontre bi ñu def ak ñun ak waa Omart Omart nekk ci ligne bi nga xamné ci si bobu lañ nek moy défendre euh, le statut de l'artiste ñom ñu nekk ci même ligne. bi parce que ligne, Habitat dafa nekk ñom actuellement c'est un projet bi nga xamné moy projet actuel bi donc ñu lekkelo té mu nek un projet vraiment très important qui qui donne des logements sociaux aux artistes et artisans dont ñepp war na donc ñu nekkon tay ci inscription bi du euh, côté Rufisque du secteur environnement. on a parlé d'un projet de plus de 250 000, mais c'est par procédure On a procédures il y processus On dañuy def par 5 000 logements 5.000 logements parce que déjà pour nous, on souffre. Pour disponible pour nous, on déjà c'est un peu compliqué donc on a rôle en fonction de jazz, en fonction de Kermoussé, Kayar Yara, fenn espace ñu def en attendant c'est l'association qui est allée vers Omart Omart mon président Mamadou Mamadou Guissé Mamadou Abdoulaye Gissé, mon porteur de projet bi moom porteur de projet bi et nous, dañu dem affiliés ak nous maanaam nous sommes affilié ak UNESCO maanaam ñu am toutes ces possibilités là euh, voilà ñu lëkkaloo liggéey mais les porteurs du projet alors waa Omart donc euh, voilà di def ay

mais ñun yàgg ci projet bi xam nañ du deuxième fois bi bi mooy énième fois bi c'est ni ci yi xamul woon yëguñu ko won et pour cela je ne dirai pas deuxième fois parce que mon pour moom en face de lui dafa am fa ben public bo xamné tay tey ñi ñuy dégg information mais ñu ci melni man ñu ci melni sama président bi nga xam moy euh LHCC président de des euh, des instruments sama instrument des des instruments du Sénégal moom xam na ne lii ay fànnay fànnay la ñi ma taxawal fii yëpp sont euh, à cheval entre Assurar et sama instrument avons une association qui est projet pour vendre mon vendredi lundi pour l'instant Assurar est un partenaire. partenaires partenaire, na Falenco Falenco Caprio Caprio est déjà son premier partenaire coalition des acteurs de la presse de Rufisque Mais nous devons soutenir cette coalition là parce que une coalition déjà logique am ay kayit euh, xam norme la télévision numérique ba paraît représenter euh, des millions et des millions en support visuel parce que nous avons xarañ le digital donc je fais un appel à un accompagnement par rapport à Caprio et tous les et tous les organes de presse de Rufisque vraiment la presse rufiscoise est en train de faire un ben essor important, non seulement départemental, mais je te dis national. Parce que tu as na sites yoo la télévision boo fa demee da nga New York ou Paris parce que non tellement c'est bien équipé Si am nañ xam-xam am nañ xarañ leen mën leen liggéey sawar la des formalisation ak formation moi c'est mon premier partenaire Mon deuxième partenaire c'est l'instrumentiste, moi c'est sama instrument moi ñii ñi nga xam musique foo ko ils sont dedans ce sont les artisans ni tamit artisans la mais sont des des des des instrumentistes. Falenko, donc falaboko la bokk donc on tend la main à d'autres organes à ce que ñu mën un am partenariat parce que lii bu donc dox doxal na pour le doxal na pour risque département mais donc na pour Dakar dox pour Sénégal alors donc pour le monde entier.